mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak banneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di maman Marième Fall maman Marième Fall nekk sage femme d'état nekk technicienne supérieure de santé waaye tamit nekk présidente honoraire euh, bu association nationale des sages femme du Sénégal maman ñu ngi lay wax dalal nag jàmm ci rajo Rewmi FM. merci ma fille Fatou jërëjëf maa ngi leen di gërëm ci invitation bi ngeen ma invité fii pour waxtaane tey li nga xam ni mooy sama mbirum métier muy métier de sage-femme may nuyu auditeurs yi ak auditrices yi di leen jaajëfal. Euh, sant ko bu baax a baax jaajëfal ko bu baax a baax moom moomu Marième Fall une fois nag xam naa ne par coutume tey mbokk auditeurs yi actualité bi moo waral lu ni mel euh, dañuy tàmbaleeg euh, maman émission bi par rapport actualité bi ah gis nañ li nga xamante ne moo xew foofu ca hôpital euh, bu Louga ginnaaw benn soxna boo xamante ne dafa demoon di accoucher ci ginnaaw gi nag daanaka jotul accoucher tax dafa génn àdduna mu mel ni nag bi information boobu amee réseaux sociaux yi daal di koy partager image yi daal di wër àdduna wërngal këpp bu mu mel ni sax loolu jur na tey ji autorité yi jël ci ay responsabilité mais laata ñuy xuus ci responsabilité yi nga xamante ne état bi jël na ko ak sanction yi nga xamante ne indi nañ ko ci tey lan mooy expliquer vraiment ñu arrivé ci ci situation bi le am nañu ne drame la sax mais quoi qu'on puisse dire nekk na loo xamante ne ci wàllu wér-gu-yaram du loolu la ñuy xaar ah jërëjëf ci wàllu wér-gu-yaram du loolu la ñuy xaar qui se pose c'est que dafa metti donc situation bi nga xam ne moom la ñuy vivre Louga c'est tout à fait déplorable maanaam kenn xamul sax foo koy classé ndax métti ndaxte kat bu njëkk dañ daan wax ne nit ñi dañ daan bañ a ñëw hôpital moo tax ñu daan loxo waaye léegi ñu gis ni nit ñi de plus en plus ñu ngi ñëw hôpital te di lor waaye dafa di ndeeti jigéen ak doomam dafa nekk loo xam ni dafa metti su fekkente ni nag surtout su fekkente ni deete boobu waroon nañ ko mën a éviter maanaam mënoon nañ ko moytu ndaxte kat li nga xam ne moom mooy organisation mondiale de la santé dafa nii soo jëlee téeméeru jigéen yoo xam ne ñu ngi faatu ci ëmb ak imbi juróom-benn fukk yi war nañ ko mën a éviter kii nag dafa fekk ci dafa bokk ci li nga xam ni décès évitable ndax waxtu ba mu waree ñëw hopital ñëw na hopital waxtu ba nga xamee ni dañ ko war a jël prise en charge même bu fekkente ni jotul ñëpp xam nañ ni complication ci ëmb ak imbi dafa di loo xam ni du wàcc donc comme moom amoon na métit am na nooni fajkat yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca hôpital bi waroon nañ ko taxaw ba lii tey bañ a am mhm. ci kaw loolu nag ñuy wax nos condoléances à la famille maanaam ñu ngi leen di jaal di bokk ak ñoom naqar bi ndax ñun ñii di fajkat di sage bu doon sunu sago loxo boo xam ne laal nañ ko dafay génn ak ree doomam wér moom mu wér waaye lii moom c'est un ñuy sant yàlla nag di julli si Mouhamed Nabi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ni yëf yi am na empleur maanaam dayowaay bi tax na ba ñi nga xam ni ñoo waroon a jóg te ki nga xam ni moom mooy ndeyu mbili gi muy président de la république jug na ci wax pour la première fois ñu loolu ñu koy rafetal ah leneen li ci des mooy ñu yëg ni ah ministère de la santé commencé enquête nañu ba pare nag mhm. ba gis nañu responsabilité te fi ñu toll nii lépp loo xam ni loi def ko ci wax mhm. ñu ngi ko ci def mhm. ñuy ñaan yàlla rek mu bañ a nekk encore un décès de plus. ndax bu ñu gisee li fi xewoon xale ya lakkoon fële ba tey xamuñu ñooñu fu ñu mujje mm-hmm. mais ñii je pense que ni vraiment la responsabilité elle les multiple allant du directeur au chef de service de la maternité mm-hmm. au personnel qui de garde et tout le monde ils sont impliqués à des niveaux différents mm-hmm. donc on se réjouit maanaam dañuy am mbégte ci li nga xam ni moom le ministère de la santé ak le président de la république demandé te koy def pour sanctionner maanaam punir ñi nga xam ni ñoom ñoo assisté ci loolu nga xam ni moo xew Louga mm-hmm. Euh, dañuy des ba léegi foofu bi information bi génnee gars yi partagé ko am na ñu génn euh, pour ne pas personnaliser le débat wax que ne eh, dafa ñëwoon accoucher wax nañ waxu programmation mais euh, am na ñu génn di wax ne ba xam sage-femme moom mooy programmer ndax loolu rôle gynécologue la li tax may arrêté wu foofu moment dama la doy laaj rek ndax sage-femme bi day nekk tout le temps en contact ak ki nga xamante ne mooy jigéen wérul su onk wala muy eh, yëg benn souffrance bi ba à un certain moment bu fekkente ne foofu loolu ëpp na ko doole ndax moom amul mat wala responsabilité woo ay supérieur am parce que euh, wax nañu ne du seen responsabilité seen responsabilité mais en tout état de cause le mal est là nit génn na àdduna yóbbaale doomam ci ay situation yoo xamante ne vraiment souhaité wuñ ko tey sage-femme bi donte moom du gynécologue du obstétricienne bu situation bi compliquée amul matu wala responsabilité woo supérieur am donte xaaja gudd la pour mu mën a rétablir situation wala wax ko ne ko nii ak nii ngay def balaa jëye bi di yegg fenn fi. jërëjëf sa laaj am na solo. Mm. responsabilité bi ma doon wax noonu dama ni man li ma gën a wax mooy que problème bi bi ci ëpp mooy incompétence incompétence mooy ñàkk am xarañte mm-hmm. te képp koo xam ni da ngay faj war ngaa am xarañte beneen bi ci des mooy euh, manque d'humanisation maanaam yërmande feeñ na fa lool sax ndax boo dee jigéen jigéen di matu même boo mosul matu xam nga ni mat dafa metti muy ñaar ñetteel ba mooy wax bi comportement bi envers les accompagnants ñi ànd ak ñi indi malade ak ñi ak malade bi ci boppam loolu dafa war a dakk beneen bi des comme sa question bi dama ciy ñëw. Mhm. sage-femme du opérer. dëgg la waaye sage-femme dañ ko xamal ne ko yow am nga foo war a mën a yem ci faj bi. faj bi bu fekkente ni dépassé na la yow chef ngay woo waaye nag bala ngay woote dafa fekk yow nga xam li nga xam ni nga xam fi nga war a yem. ak fi nga warul a yem. waaye aussi nga war a mën a seet nit ki ba évaluer ko ba xam fu mu toll exactement pour mën a dem woote ji donc vraiment c'est inadmissible l'autre chose mooy que ni ñun suñu temps mosuñoo toog ñun kot salle d'accouchement ñun sage-femme wala infirmier ak aide infirmier ci salle déedéet équipe la mm-hmm. équipe moo war di fanaan maternité équipe bi sage-femme bi da cay nekk gynécologue ba nekk fa anesthésiste ba nekk fa interne ba nekk fa ak ñay bale ñay ménage ak aide yi ñëpp nekk fa su ko defee yow boo xoolee nit ki xam ni lii du sa domaine de compétence nga woo ki sa supérieur loolu moo normal mm-hmm. mais fii nag bébé moom dafa mel na est-ce que xam na sax li xew beneen bi des mooy ñun dañuy gis ni ah, Mm, bu mat xasee ba ñëw wala ñu ne la programmé nañ la programmé nañ la mooy lan. Mm-hmm. ëmb ak imbi dafa nekk loo xam ne dafa doy waar. ndax jafe-jafe mën naa egsi à n'importe quel moment. donc raison de plus bu fekkente ni programmé nañu nit ki. Mm-hmm. mu ne la programmé nañ ma. waaye man de dama yëg métit nga mën kaa seet bu baax a baax a baax di bañ a xaal programmation. nit mën na dund ak métit ba dee. Mm-hmm. loolu c'est inadmissible beneen bi des mooy dama koy wax en passant mais je des dédommage pas les la sage-femme. Mm-hmm. maanaam dañu gis ni maire yi bu ñu indee seen doom yi hôpital dafa am ay garab yu ñu leen di jox. Mm-hmm. te ñun duñ ko yëg garab yooyu ñoom normalement bu fekkee wax nañ leen ni sax xëy na day matu toll na fii wala fële ñuy jox leen ko mu gaawal mat bi mm-hmm. mais koo xam ne matoogul boo ko joxee nu muy def mm-hmm. biir ba day metti ba mujj day fàcc te li ma wóor woor mooy boo moytul rupture utérine la xam naa ne bu ñu defee autopsie bi boo moytul loolu la ñuy gis mm-hmm. waaye l'un dans l'autre man de sage-femme laa dooma woo ñaari yoon te xëccuma la indi la fekkente ni sage-femme bi seet na xool na surveiller na dem na ba fa nga xam ni moom la domaine de compétence am yem maanaam fañ ko yemloo mu ne supérieur am kaay seet waaye fii liñ fi gis mooy yow yaa ngi hospitalisé nit nit ki nga hospitalisé mu ngi ni dafa am métit ñëw nga ñaari yoon seet ko métit bi yokku na danga koy jël yóbbu ko fa ngay nekk di ko xool loolu moo normal waaye bàyyi ko ci biir néeg mu am métitam ba nelaw ci kaw loxo yaayam c'est dramatique donc moi je pense que ni lu ñu sévir sax du doy ndaxte c'est deux vies qui sont parties deux vies sont parties donc moi ce que je mooy leen il faudrait que ñun en tant que sage-femme qu'on soit il faut qu'on se mette dans la peau des autres maanaam il faut que ñu fexe ba nga xam ni nit ki bu fekkente ni dafa ñëw am métitam ñu mën ko cee jàppale nan lañ ko ciy jàppale maanaam wax ak moom waxu sutura seet ka seet bu normal ndax seet bu normal du rek def naa toucher vaginal déedéet seet bu normal lépp ngay seet kanamu nit ki. Mm-hmm. état général am est-ce que baax na est-ce que baaxul biir bi ak leneen ak leneen ak leneen mooy seet bu normal. ak un état d'esprit ngay waxtaan ak moom pour pour delloosi ko. ndax waxtaan ak accueil maanaam teeru nit wax ak moom dafay génne lu bare ci feebar. donc l'un dans l'autre nous devons être empathiques. beneen bi ci des dafa am déshumanisation des soins maanaam nit ñi dañuy faj. comme fajuñu nit mel na doomu bàyyi ma la ñuy faj. Mhm. loolu mooy déshumanisation des soins. Mhm. ndax nit war nga am tuuti xolu de mhm. pour mën a faj nit ki donc cette déshumanisation des soins il faut que ñu jóg ci. la population réclame des soins bienveillants des soins bienveillants avec une communication interpersonnelle intense maanaam nit ki dañ ko war a faj faj mu mucc ayib te di wax moom ndax nit la bi ci des nag maa ngi ko doon wax léegi am na problème incompétence mhm. su fekkente ni nit ki sage femme bi mënul xam ne ndaw si mu ngi ci danger mhm. kooku kon moom xamul lu muy liggéey lu mu doon du dëgg c'est très grave mhm. donc yooyu yëpp dañ ko war a régler il s'y ajoute aussi le problème de maanaam l'équipement l'environnement et cetera mais yooyu après la yow soo mënulee même sa hôpital bu fekkente ni amul la mu war a am yow war nga mën a référer ci beneen hôpital donc c'est impardonnable à mon avis c'est impardonnable mhm. Mhm. Euh, ñoom sax euh, du dañu leen di stigmatiser wala euh, ñu ñu leen di discréditer entre autres xanaa kay dafa fekk rek actualité bi moo dominante ci par rapport ak ça te mënuñu ci wax maman Marième Fall xam na ne sage-femme nga yaa ngi suivre débat bi boobu ba léegi mais mu mel ni bii dañu ne moom mooy goutte d'eau bu bu bu maanaam lu goutte d'eau bu ëpp bi ba moom moo war a ndox mu ëpp ba moom moo moo waral boo duggee ci groupe yi yëpp que muy groupe yu góor yi nekk ak yu jigéen yi da nga ciy gis ay témoignages yoo xamante ne sa xol bu dëgërul trop sa xol day daal di tooy am na kenn koo xamante ne nee na jot na accoucher mu sonn loolu doomam am bec de lièvre bi mu amee bec de lièvre tete a nàmp donc mu woote woote tey suba ëllëg ngoon ñu naan ko defal ndànk amoo we amoo soow amoo soow amoo soow finalement xale bi jooy jooy jooy ba euh, laata muy jël doomam di ko uuf sax maari day taali doom bi décédé na ba fajar ba jot ba léegi sage bi ñëwul nemmeeku si ko bi muy ñëw di ko xool fekk dem na bu yàgg wax bi jóg mu ne ko nga doog ba sa doom weex tàll xaw ma jaune nga may door a woo alors que le mal est déjà fait donc kooku ñàkk na doomam dégg na ci wax bu nakari alors que peut-être kii accouché prévu par la xamul lu bari yow yaa ko war a euh, dalal comme tu dis rek bi benn exemple parmi tant d'autres tey jii wax nga ko maman changement de comportement la jikko yi la éducation la mais aussi ndax ñoom it seen xol yi warul toj parce que liggéey bi ñoo ko choisir kenn leen ko tey jii compétence posé wu na mais tey bu ñu demee ba nga xamante ne kii dafa accouché xamul dara ci doom yaayam nekk fa ñibbi na nga war koo dalal nga toog ba bër set ñëwoo sax xool ko doom bi dee loolu aussi tamit le mal est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine ah c'est vrai c'est vraiment je suis <laughs> <laughs> dëgg la le mal est profond maanaam euh, mbir mi moom buñ koy gëstu rek vraiment dañuy gis lu bare bare bare ndaxte am na loo ci temps bu njëkk ba amul woon mm-hmm. waaye fi ñu toll nii nag suñu waxantee dëgg rek problème mu yar mu ngi ci xale yaruñu problème mu comportement mu ngi ci xale yi dafa am nit nu mu mën a nekke nekkin boo xam ni mooy fajkat yar bi nag ca biir kër ga la ndaxte su fekkente ni yar nañ la dinga may doomu aadama gëdd di ko may cër même bu fekkente ni nekkoo fajkat rawatina boo nekkee fajkat mm-hmm. donc man li may wax mooy il faut que ñu changer jikko nit ñi ku wax rek waxaat leneen ku wax rek waxaat leneen mm-hmm. waaye man damay confirmer ni que ni en fait mm-hmm. yëf yi gën naa xóot sax li ñu wax nii. ndaxte ñun ñii suñu bopp ñii ñun retraité nañu peut-être man ñëpp xam nañ ma mais dangay wax ak sa collègue mu ne la man de dama demoon hôpital yóbbu sama malaat mm. waaye sage-femme yi fa fekk nii lañ ma def wala nële lañ ma def faale wuñ ma. Mm. wala naañ ma yemal fële. dañuy am retour yi. Mm-hmm. waaye loolu neexuñu. loolu moom neexuñu parce que bu doon suñu sago suñu corporation bi dafay nekk indem am na loo ni nag kuy liggéey di nga juum. fi ngay liggéey si ngay juum mais juum ci nit moo warul su fekkente ne xam nga fi nga war a yem ak li nga wa soo xamee li nga war a def xam naka nga ko war a defee ak fa nga war a yem dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax donc li ñu wax daal mooy mbir mi keeku kii la rek nu mu tudd dogu géej la rek kër gu nekk dugg na fa cin bu nekk ci ceebu jën dugg na ca waaye damay rappeler population bi kani tey lii am na dëgg la metti na lool kenn mënu ko qualifier mm-hmm. waaye nañu xam ne ku ci nekk rek am na benn bésu bànneex ak sage-femme mm-hmm. Mm-hmm. moins am na benn bésu bànneex ak sage boo xam ni sage-femme exemplaire la waxtaan naag moom teral na ko tatagal na ko faj na ko faj mucc ayib génn na fa ndax gis nañu ay sage-femme yoo xam ni am nañu ay turandoo yu dul jeex. c'est nag dañu ni benn pomme de terre bu nëb dafay yàq saaku ah. pomme de terre ba tax na il faut que ñu xam ni la vie des personnes et importante beneen bi ci des le développement des TIC et des réseaux sociaux tax na ñun dañu war a éviter acte boo xam ni rek. dafay indil préjudice profession bi dafay pré indil préjudice profession bi dafay nuire maanaam day tax ñu ngaañ ŋàññi profession bi ku ci nekk rek war nga liggéey ci loolu mais loolu nga basé wu ko nag ca la nga xam ne moom lañ la jàngal école la nga xam ne moom lañ la jàngal école soo ko pratiquer en général du ñu la ŋàññi mhm. mais fii moom vraiment mois je trouve pas les mots maanaam xaw ma sax lu ma ciy wax voilà. Euh, ñu dem ci foofu wax nga li nga xamante ne euh, dañu war a appliquer certainement liñ leen di jàngal mais mu mel ni comme ni ko éducation bi di defee foo tourné yaa ngi gis ay école privée tey jii aussi euh, école de formation yi en santé bëri na tey ndax jàpp nga ne ci yenn école yi qualité bi mu ngi ci ndax yenn comportement yi je suppose que ne dafa am lu koy expliquer. waaw xam nga Fatou euh, par problème mu njàng mi njàngaleem sage-femme dafa évoluer bu baax a baax a baax ndax bu njëkk ba DFM lañ daan jël ak trois ans léegi ñu ne bac ak trois ans. Mhm. ba ci li ci desati mooy que ni. dafa am ay gëstu yoo xam ni OAS bi organisation boobu mag boobu de la sous-région defoon pour seet naka la ñuy améliorer qualité formation mu def ab document mhm. maanaam ab téere boo xam ni képp koo xam ne yaa ngi ci région Afrique moom ngay former sa ay nit tu vois mm-hmm. donc ci biir loolu ñu améliorer bu baax contenu bi maanaam mbir mi ci biir ni ñuy former ba pare ñu ne ci biir formation bi comme toujours rek niñ daan wax mm-hmm. problème mu jokkoo ak nit problème mu nekk ak nit problème mu respect les valeurs di nit ki dafa ci nekk ndax tey jii ñun buñ leen di def examen dañuy seet ndax dañuy def préparation psychologique malade bi hmm. <laughs> maanaam tey yow ñëw bala ngay delli dem jël sa matériel pour piqûre dangay ñëw waxtaan ak malade bi ne ko nga def na faraane fanaane nangam nangam dama lay ñëw piqûre si hmm. waxtaan ak moom ba xelam dal nga dem jëli sa matériel ñëw ne a ah, ñëw naa di wax ak moom tout au long de l'acte leen koy jàngal hmm. waaye force est de reconnaître ba nga xamee ni dañu libéraliser affaire école yi ba léegi y' a pas un encadrement des écoles et un accompagnement de l'ouverture des écoles maanaam dañu ni liñ doon former ci sage-femme dafa ndaw léegi nañ dugal privé bi ci biir waaye ba ñu dugalee privé bi ci biir n'importe quel type de corps de métier wala même une personne qui n'a pas de métier day ubbi école ñu gis ko. Mm-hmm. il s'y ajoute que amuñu profil maanaam nit ñi war a jàngale foofu yu doy mm-hmm. yoo xam ni doy nañu pour mën a jàngale ci école yooyu yëpp personnel enseignant mm-hmm. bi ci des mooy terrain de stage yi nga xam ni fa la ñuy defee stage pratique ndaw na ndaw goo xam ni mënul couvrir toutes ces écoles mm-hmm. donc pour man le ministère de la santé doit revenir pour voir école yi seet lan la ñuy former beneen bi ci des mooy école de formation yi actuellement avec le bac plus trois ans ñu ngi ci enseignement supérieur enseignement supérieur dafa ni dafa am ay crédit horaire mm-hmm. yoo xam ni xale bi bu ko amee war naa am licence ministère de la santé ni néanmoins dañuy def concours accréditation pour am diplôme d'état ñaar yooyu nag nekk fi licence dañuy lay jàngal enseignement modulaire ngay am ay not ñu lay évaluer soo amulee ñu jëlaat reprendre et cetera ba nga am sa crédit soo amee sa crédit ndax war ngaa mën a nekk sage-femme wala déet il faut que ministère de la santé et ministère de l'enseignement supérieur toog. Mhm. pour seet loolu ba pare à partir de là-bas ñu seet naka la ñuy saytoo écoles yi. Mhm. contrôler écoles yi. ba école yi nekk école de qualité mhm. et c'est important ndax fi mu nekk nii ci Sénégal ministère de la de l'enseignement supérieur ñi mu accrédité ñi mu accrédité mhm. motuñu cinq pour cent des écoles te suñ la waxee y a décole d'écoles pléthore d'écoles mhm. surtout à Dakar da ngay gis néeg sax nit ko ubbi néegam si suuf def fa benn école jël la première année ba deuxième ba troisième année ci benn salle bi nga xam ni mooy këram c'est pas normal il faut qu'on réa qu'on qu'on maanaam il faut que ñu réglementer ouverture école yi ba ña fay génn mën a nekk la nga xam ni moom la ñu leen di doye mm-hmm. kii nag dégg naa sage-femme contractuelle la contractuelle am nga diplôme normalement ci li ma xalaat ci li ma xalaat mm-hmm. ndaxte su fekkee contrat ministère la di nga am diplôme ba pare diplôme sage-femme mais nag am na ay contrat yu ñuy def ci biir hôpitaux yi ak biir district yi yoo xam ni on c'est pas type de personne bi ñuy jël si kaw loolu nag laa naan ci kaw loolu ministère de la santé dafa war a exiger képp ku ñuy jël ngay sage femme ngay médecin gis nga médecin yi ñu fiy jël te ñu médecin ñu am benn document boo xam ni dañu la koy saytoo saytu ndax fi ñu toll ni ñun amaguñu ordre bu ñu amoon ordre bala ngay exercer da ngay inscrire à l'ordre ba pare ñu seet ndax say compétence wóor na wala wóorul waaye comme amaguñ ko ministère de la santé war na instruire les structures sanitaires pour que contrat bi soit des contrats basé sur les compétences mm-hmm. maa ni contrat boo xam ne li koy tëral li koy li koy li koy li mu li muy li muy lalu mooy nit ki xam la muy def mm-hmm. xam-xamam màcc ci jëf-jëfam màcc ci attitude am màcc ci maanaam nekkinam na màcc ci loolu je pense que buñ ko defee y aura beaucoup de choses yoo xam ne dina changer. Mm-hmm. Euh, ci foofu sax euh, lay lay descendi wax nga ko li am ci école yi bëri na te certainement euh, qualité bi c'est pas trop requise responsabilité bi bëri na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram rawatina wa ministère de la santé ak action sociale bu ñu waxee école yu bëri kon je suppose que lim bi génn ci école yooyu bari na ndey ji wax nga ko sax ki sa biir wax am na ñoo xamante dañuy mbubb yóbboo loo xamante ne nekk nañ nekk nañ ko nekkuñu ko autant pour moi gis nañ fi faux gynécologue gis nañ fi folie folie folie ndax loolu tamit bu ñu génnee jàng nañu mais exercer wuñu ndax duñ ko mbubboo ba yenn saay muy ni gàllankoor aussi gangréner le milieu même parfaitement vrai payum mhm. jàng mi dafa metti ci parents d'élèves yi donc boo jàngee sa ñetti at dañuy fook ni rek yow war ngaa mën a nekk doktor war ngaa nekk sage-femme donc ce qui fait ah, su fekkente ni dañ la naan demal wuti liggéey nga dem wuti liggéey parfois tu peux trouver avec un parent boo xam ne moo lay arrangé nga dugg pour liggéey mais boobu sax xëy na kii mais li ma bañ kii mooy que ni en fait ñun fii Sénégal dañuy soxla sage-femme. OMS organisation mondiale de la santé dafa ni pour que ndeeti jigéen ñi wàcc. il faut benn sage-femme pour trois cent jigéen ñoo xam ni juróom trois cent mooy ñetti téeméer ñett trois benn sage-femme pour trois cent jigéen ñoo xam ni dañu toll si njur ñun fii ñu ngi toll si benn sage-femme pour deux mille quatre vingt six femmes en âge de reproduction le paradox mooy mm-hmm. dañu am un lot de sage-femme boo xam ni dañu am seen diplôme te am ñu liggéey donc ñooñu c'est bomb bombe à soo fayee sa njàng góorgóorlu kërti kërti ba def sa accréditation nga am sa diplôme waaye waay waaye nañu fexe di former selon les besoins maanaam bu fekkente ni dañu seet ni Sénégal soxla na tant de sages-femmes at bi temps la ñuy jël at bële temps la ñuy jël at bële la ñuy jël ñu jéem a seet stocku sage-femme yi fi nekk ñu jéem leen a utiliser mais ñu bañ a former rek former pour bàyyi nit ñi ñuy dem parce que loolu mooy bombe à ma dañuy gis sax ne am na si ñoo xam ni dañuy ubbi ay cabinet seen biir kër yi. léeg ñu indi malade boo xam ni malade bi téye nañ ko fa traumatiser ko mm. ci ci soin moom daañ la wax wax ju neex mm-hmm. parce que yaa ngi seen clinique mm-hmm. waaye paj ma day des ba nga xam ne buñ koy yegg si fekk na ndaw si bu ñu gaawulee ci moom mu dem mm-hmm. donc loolu yëpp c'est à maanaam dañ ko war a gëstu seet sage-femme yi chômé seet nan leen mën a placé pour ñu mën a am ab liggéey waaye placé leen ñu am ab liggéey rek doyul koo teg muy liggéey da nga war a superviser li muy def saytu li muy liggéey saytu ko bu fekkente ni yaa ngi koy saytu di nga xam ndax ndaw si li mu sage-femme bi wala en tout cas prestateur bi li mu war a def mu ngi koy def wala defu ko bu fekkente ni la muy war a def defu ko nga seet ban domaine la manqué nga daal di ko ci formé waat ndax nit bu génnee école ba ba muy retraité dana am lu bare loo xam ne dina ko fàtte mm-hmm. boo liggéeyee juróomi at am na lu bare looy fàtte mais il faut que ñuy def supervision il faut que ñuy saytu ndax performance yi maanaam liggéey bi mu ngi dox ni mu doon doxe mm-hmm. su doxulee nu mu doon doxe ñu jël ay tëralin yoo xam ni vraiment dina tax population bi mucc mm-hmm. Euh, maman da nga wax euh, ci sa biir wax euh, loo xamante ne dafa attirer sama attention mooy norme bi OMS digle ak ñun suñu effectif bi mu mel ni déficit bi wala gap bi c'est extraordinaire tey jii on nous parle de la santé pour tous l'accès de soins à tout le monde alors que euh, norme bi moom vraiment euh, y même pas photo tey jii aussi ndax yegg nañu ci lu ñuy glorifier ku am xaalis Euh, ku dem hôpital di nga faju wala la santé pour tous. je pense que l'accès des so euh, maanaam l'accessibilité maanaam jotewaayu paj mi am na ci Sénégal am na ci Sénégal amélioré wu na daal maanaam yokku na jote ci paj mi yokku na bu baax parce que su fekkente ni nombre de postes de santé yi ak nombre de hôpitaux yi. ak nombre structure yi ñuy fajee yépp mm-hmm. wax dëgg yàlla yokku na mm-hmm. waaye accès bi du lool rek mm-hmm. <laughs> maanaam jote bi du rek ni hôpital bi mu ngi fi. tabax nañu fi. waaw <laughs> très bien jote bi mooy aussi financièrement waaw est-ce que population bi am nañu lu ñu mën a jotee paj mi mooy accessibilité financière parce que bële mooy accessibilité géographique kooku moom ça s'est beaucoup amélioré. Mm-hmm. accessibilité financière bi itam ça s'était amélioré avec le problème des mutuelles de santé. waaw mm-hmm. stratégie bu baaxoon la mais population bi ñoom ñoo xawul a pare pour di prévenir wala di aar seen bopp ci li nga xam ne ñëwagul. Mm-hmm. benn ñaareel ba itam peut-être que y a eu beaucoup de gratuité. maanaam césarienne gratuit mais est-ce que césarienne gratuite na réellement. accouchement gratuit et cetera gratuité boobu état bi mooy war a fay li nga xam ni moom mooy compenser. Mhm. li ci ëpp mooy que ni ah dañu gis ni état bi dafay yore lu bare bare structure de santé yi donc jotee bi faj bi benn la ci géographique maanaam yaa ngi dëkk fii am nga poste de santé bu jege waaye jote bi ci affaire finance moom moo nekk problème l'accessibilité. waaw géo euh, financière. Mm-hmm. moom mooy problème beneen bi accès bi nag mooy accès au soins. Mm-hmm. parce que bu fekkente ni géographiquement yow di nga jotee ci euh, structure bi ñu ne faj mi waaye ñu ne ñu njëg gi waaye lila gënal mooy nga am soins yu baax donc l'accès universelle à des soins de qualité. Mm-hmm. foofu la ñu war a gën a farloo. l'accès unique maanaam yow quelle que soit la personne moo xam am na wala amul moo xam dafa naanti walla naantiwul bu xasee ba dugg si suñu bërëb bu fajukaay moo am fa paj moo xam ne dafa mucc ayib. Mm-hmm. boobu nag moom mooy alikang gi moom lañu ñu war a gën a liggéey. ndax ku dugg hôpital rek xam nga nag su fekkente ni nit ñi dañuy def euh, di wër-wërloo bu ñu feebaree. Mm-hmm. Mm-hmm. di wër loo di dem seeti ma sàmba di seeti ma demba et cetera loolu yëpp c'est parce que tout simplement accès boobu au soins de qualité moo des ci suñu hôpitaux yi. waaye bu fekkente ni yàlla def na ni yàlla mooy faat nag. waaye le maximum de personne ñiy ñëw ci hôpitaux yi dañuy am satisfaction maanaam dañuy am li leen gënal ci seen faj. su ko defee daañu am accès universel au soin de qualité. d'accord euh, euh, euh, bëri na ñuy farataal di wax tout es centralisé à Dakar boo jëlee yenn spécialité yi boo jëlee neurologue yi psychiatre yi neurochirurgien bi pédiatrie entre autres gynécologue yi ñëpp dañu naan dañoo centralisé wu à Dakar ñu bëggoon xam rek ndax ci monde rural bi nga xamante ne ñoom bu ñu buggee def ay traitement ndax ñoom am nañu assez de sage-femme ba nga xamante ne duñu mën def yenn consultation ñuy jóge dëkk ba dëkk donte seen euh, limu sage-femme yi xam naa ne taxu ko néew loolu mais ci moom rural bi ndax euh, am nañ assez de sage-femme wala personnel yooyu noonu waaw loolu nag moom dinaa ci sawar a tontu parce que quand am na ay jéego yuñ mm-hmm. def mm-hmm. mais xam naa ni des na nag quand parce que ci jéego yooyu sage-femme yi surtout laay wax mm-hmm. ah, temps bële ci ginnaaw defoon nañu fi benn stratégie boo xam ni maanaam sage-femme itinérante sage femme yoo xam ne dañ leen di teg ci gox yi gën a fasantikoo yu sore mm. waaye dañ leen di sant ne leen comme fii ngeen nekk ay dëkk dëkkaan ñoo leen wër yow sage bi ñaari fan ngay am fii ci centre bi yeneen ñaari fan yi da ngay dem ci àll bi. fekk ji nit ñi ci seeni ay village mm-hmm. pour faj leen. Mm-hmm. donc ñetti fan yi sur juróomi fan yi foofu ngay nekk. Mm-hmm. mu nekk stratégie bu baax parce que dina doon tax nit ñi jot soin de sage-femme ah beneen bi ci des mooy ñu gis ni euh, comment il s'appelle euh, système de santé euh, dafa mos a lu ñu tuddee itinérance maanaam poste de santé bi infirmier moo fi nekk pour que ñi nga xam ni ñu ngi ci village yi mën a am am pàcc day jàpp chaque semaine benn bés boo xam ne daf koy jagleel ñi nga xam ne amuñu poste de santé ak case de santé su ko defee day dem dina ñàkk dina faj sage-femme ba ca wetam dina seet jigéenu wérul yi dina joxe planning familial dina nu peese xale yi dina nu waxtaan ak nit ñi bu doon itinérance donc loolu lu baax la woon waaye suñu waxee rek ne ndax personnel de qualité bi personnel de santé qualifié am na ba ca cappaandaw ga dañu naan déedéet waaye comme defoon nañu ay stratégie yoo xam ni dina tax nit ñi même sax da nga daan gis ay gox yoo xam ni su passé visite jotee. Mhm. dañ leen di regrouper ci biir village bi wutal leen ab ndaamaar. ñu dem ba ceeb poste de santé ba pour dem defi waaye nag problème maternité moo doy waar ba nga xam ni mm-hmm. li gënoon mooy accès des sages-femmes mm-hmm. pour tout le monde mm-hmm. ndaxte dañu ni gis nañ ni ci ay enquête yoo xam ne dañ ko def ci juróom fukki dëkk que ni ndeeti jigéen yi ak xale yi liir yi dina wàññeeku bu fekkante ni augmenté nañu nombre de sages-femmes yi ça reste. Mm-hmm. il faudrait que ça soit des priorités maanaam mu nekk loo xam ni. ministère de la santé et les autorités dañ koy jël à bras le corps pour mën ko def comme ça population bi yépp am accès. li nga wax dëgg la ah yaa ngi fi doon dégg gynécologue yu ñu affecté ñu dem dellu si waat condition de travail. Mm-hmm. sage femme yi da nga ci gis ñoo xam ne dañuy toog jékki-jékki démissionné ndax lan dañ leen di def yónni leen yo def wàcc leen foo xam ni zone bu soree la bu reculer ñu bàyyi seen borom kër fii yóbbu seen doom daañ fa toog ñaar ñetti at ñeenti at ba juróomi at mais pour ñu affecter leen c'est un problème donc le problème de la mobilité du personnel il faut que ñu encercler ko encadrer ko ba nga xam ni koo xam ni dem na su waree dellu si waxuma mu dellu si Dakar de. Mhm. waaye su waree dellu si si feneen mu dem feneen. Mhm. waaw donc boobu beneen affaire la bi ci des mooy que ni en fait suñu seetee Dakar Dakar est pourvu. Mhm. y a les professeurs agrégés y su y a les et cetera et cetera mais ci kaw li nga xam ne moom laal doon wax itam ci problème mu jigéen ñi ak euh, xale yi muy ëmb ak imbi euh, CGO. la chaire de gynéco obstétrique ak ministère de la santé dañu tëraloon li nga xam ne moom la ñu wax format ak euh, benn ONG def naa ni boo xam ni dañ leen jàppale woon pour ñu jël ay compétence su mm-hmm. maanaam ñoo xam ni ay docteur la ñu ba pare ñu jàngal leen naka la ñuy opérer naka la ñuy jëlee femme mm-hmm. enceinte et cetera et cetera wàññi leen yóbbu leen ci gox yi nga xam ni ñooy gox yu fasantiku yi mm-hmm. su ko defee infirmier bi ak sage femme bu référé fekk ka fa moom mu mën a opérer waaw mais def continuité mais Dakar n'est pas comparable aux autres zones mm-hmm. sur le plan climat mm-hmm. sur le plan de de l'avenir de tes enfants mm-hmm. maanaam sa doom yi seen devenir seen école et cetera sur le plan climat sur le plan motivation yooyu yëpp tax na euh, ñu ci bare du ñu dem ci àll bi waaye man xalaat naa ni comme ni ñu daan def ñun bi ñu nekkee jeune bi ñu génnee école sage-femme dañu nu defal euh, kii contrat contrat boo xam ni dañu lay wax ni pour ñu recruter la fonction publique daañu la recruter fonction publique mais tu as en brousse au moins pendant cinq ans. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu dafa amoon. stage yi. waaw dafa stage di nekk. stage li déglu ko bi da am sa diplôme ba pare. fonction publique ne la danaa la recruter. waaye su ma la recruter da ngay def au moins cinq ans dans les régions. Mm-hmm. loolu day tax ah, paj mi ñi nga xam ne ñooy paj ñooy faj ñu gën a jege ñi nga xam ne ñoom la ñuy faj. Mm-hmm. waaw mais booba nag loolu léegi amatul. Mm. loolu léegi amatul dangay ngay daw ci recrutement ba sonn et cetera et cetera léeg nga trouvé foo xam ni clinique privée la wala leneen nga dem fa. Mm-hmm. voilà donc c'est un système à réorganiser. Mm-hmm. Euh, ci foofu sax la ñuy wax euh, wax nañ ci lépp lu jëm ci wàllum sage-femme mais tey eh, c'est un système à réorganiser maman Marième Fall bu ñu doon wax euh, difficulté yi nga xamante ne moom moo nekk ci exercice ñii di sage-femme tey lan nga ñu ci mën a wax malgré tout ce qui se dit ñoom tamit du ñàkk ne vraiment ñu ngi jànkonteel ay difficultés yoo xamante ne tey ji sax bu ñëpp yuuxoo dañuy wax yéen a ngi yuuxu mais est-ce que xam nga ñun conditions yi ñuy vivre tey seeni difficulté jërëjëf xam nga moo tax ma ni la woon depuis le début il faut savoir parfois raison garder mhm. man suñ xasee ba ba dëddu àdduna rek amatul sax excuse mhm. mais ñun def ñuy jox occasion itam ñu wax difficulté sage-femme am sage-femme boobu contractuel la ñu ne contractuel la ñaata lañ koy fay mhm. le problème de la motivation maanaam nit ki pour mu am ab sawarte ci liggéeyam jàngat boobu ma la doon wax mooy gëstu boobu. Mm-hmm. dafa corrélé li nga xam ni mooy motivation ak satisfaction au travail. lan mooy indi motivation lan mooy tax sage-femme bi am satisfaction au travail. Mm-hmm. bi ci jëkk ñu ne ba ñu gëstoo dañu xam ni problème mu salaire moo jiitu salaire dañu ni. moom moo ëpp importance te li ñu gis fii mooy comme ni ma la ko waxee woon au début. contrat yi ñuy def contrat fictif. ñu jël sage femme ne la yow sage femme communautaire nga parce que yaa ngi ci poste de santé ñu lay fay ay cinquante mille ak ci soixante mille ndax loolu mën na faj ajo bi ci des ñu ne la charge de travail charge de travail mooy lan maanaam coono bi sage-femme bi di daj ci biir maternité bi garde vingt quatre heures garde vingt quatre heures wala garde douze heures douze heures yëpp yaa ngi taxaw bu kii nga dem fee kii kële et cetera te li ñu gis mooy maternité boo xam ni dafay def trente accouchement wala vingt accouchement ñu jël ñaari sage-femme kott teg ka fa c'est un problème te rek du accouchement ndax jigéen joo xam ne ëmb na lor rek wan na loor saa soo xamee ni am na jafe-jafe maternité lay jubal si donc en plus de ñii wasin am na ñu am ay complication ñii dañuy naaj ñii dañu am ay crise ñii dañu am hypertension am na ci ay urgence vitale et cetera yooyu yëpp nga war ko gérer si ndodd sage-femme bi ba sa compétence fa mu yem ñu ne beneen bi mooy l'équipement et le matériel am na solo il est arrivé des temps yoo xam ni gant dina manqué salle d'accouchement gant ga gant pour lan la pour protéger malade bi mais protéger sa bopp su gant manqué nooy def alors que maternité mooy gën a indi xaalis pour hôpitaux yi ndax foofu da ngay fay ticket d'accouchement su césarienne amee da nga ciy joxe da ngay participer quand bien même dañ dañuy gratuité césarienne et cetera. matériel boobu amul ñu ne déetawaay ñu ne liir bi bu juddoo am na nu muy mel noo xam ne da nga koy réanimer su fekkee matériel boobu amul liir ba nu muy def mm-hmm. mais yow nga koy xool de façon impuissante mm-hmm. mais nit nit la nit nit la su fekkente ni cas bii da nga ko war a régler te mënoo ko régler da ngay craquer merci donc c'est ça les conditions de travail de la sage-femme mm-hmm. et la charge de travail mooy déterminer la rétention au travail maanaam bu fekkee charge de travail bi liggéey bi dafa diis lool sage-femme bi day xalaat tout temps dem waaye bu fekkente ni dafa nekkoon équipe boo xam ni dañ ko fa jox ay responsabilité di seet liggéeyam di ko motiver positivement su ko defee day farataal di toog fa mu nekk. dafa dafa am lu ko fay téye day motiver pour toog. beneen bi ci des mooy que ni en fait ñun sage-femme yi on boo beau dire mais population bi mu kile wuñ de euh, kii comment on encore population bi bokkam valoriser wuñu suñ euh, la monnaie la waaw ça veut dire que valoriser wunu bu baax suñu profession ñun suñu corporation la population mhm. c'est vrai lii am na day tax aussi ñu gën nu dévaloriser mhm. mais suñu seetee li sage femme di daj si biir salle d'accouchement te képp koo xam ni ngay góor ngay jigéen même góor xam na ni réewle ay risque la le fait de voir du sang tout le temps le fait de voir du méconium tout le temps dangay toog femme bi di am doom maari day taali wàccu la sa kaw nga dem changé blouse ñëw toppatoo waat ko et cetera donc sa xol bu tojulee doo fa mën a toog boo fa beaucoup de compassion mhm. ba tax na dañuy ñaan aussi population yi ñu gën noo daal mhm. ñun dañu war a gëddaal population bi gën a am comportement boo xam ni comportement nit la mm-hmm. mais nañu population bi itam rendre la moone parce que bu dee benn bés sax rendre nañu service à la population. Mm-hmm. Euh, tey euh, naka lañu def euh, pour redresser la barre maanaam gën a leen jox seen gëdd waaye gën leen ñoŋal ci seen bërëbu liggéeykaay yi et surtout appui yi nga xamante ne autorités yi war nañ ko def lente ak yéen. pour gën a ñoŋal liggéey bi daal defe naa ni il faut que ñu revoir le système de recrutement bu ñu paree ci formation. Mm-hmm. nañu revoir le système de recrutement. le système de recrutement des sages-femmes ah c'est un système universel ñun infirmiers ak ñëpp ñoo ko bokk c'est vrai mais li ñuy wax mooy que ni bu doon sama sago ñu am ay DRH sous DRH yoo xam ni dañuy nekk au niveau local maanaam boo demee région médicale ñu am fa des services décentralisés des services de ressources humaines mais service de ressources humaines boobu du rek recruter lay def mais au moins dina seet li nga xam ni moo war ci affaire personnel bi ñu jéem a tëral ay plan pour motiver davantage le personnel donc loolu bu wéyee le recrutement wéyul sax parce que dina tax aussi ñi nga xam ne ñooy recruter sage-femme ci au niveau des structures de santé parce que structure de santé am na ci ñoo xam ne am nañu capacité pour recruter ñu jël exemple fonction publique aligné sage-femme yi. Mm-hmm. important. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy que ni une motivation. motivation mooy lan. sage bi dina liggéey ba màgget ci salle d'accouchement am na ay sage femme yu ma xam ay Tambacounda lu baax lañ doon def. Mhm. mais amuñu benn sanction positive. duñ leen décorer. Mhm. au niveau fi ñuy liggéey bu ñu retraité furaas. fàtte nañ leen alors que dans la structure war nañu mën a am un système boo xam ni les sages femmes qui se sont distinguées par le travail daañ leen. defal ay récompense mm. parce que waaw góor de baax na de mm-hmm. waaw góor day tax nga gën a dolli ci li ngay def mm-hmm. loolu aussi dafa am solo ah beneen bi ci des nag mooy que ni en fait après le recrutement la motivation le salaire ñu yokk rek condition de travail yi mm. salle d'accouchement suñu defee ñetti ñetti sage-femme wala ñeenti sage-femme kii bu nelawee waxtu sax ci guddi gi keneen ki ñëw nelaw waxtu au moins quand bien même que nelaw sax yóbbu leen fa waaye o oh, nit nit la reposer seen cerveau tuuti rek mais amul salle de garde parfois amul salle de garde parfois salle de garde yi sax léeg-léeg amee peut-être ñeneen a fay tëdd mais du doon sage-femme yi parce que deux sages-femmes wala benn sage si biir salle d'accouchement doo mën a am temps wu reposer wu mm-hmm. te itam ñu seet le système de garde. Mm-hmm. le système de garde nañu alléger système de garde bi a défaut de mettre le nombre de sages-femmes ñu alléger le système de garde ba nga xam ni soo defee huit heures de temps nga war a mën a dem noppali ko au moins dellu siwaat defaat huit heures keneen def huit heures huit heures et ñoom ñoo xam daal ni ñuy defee le système de garde ni ñu koy programmer loolu am na solo aussi pour sage-femme ndax dina tax aussi seen xel dal Ah, beneen bi ci des mooy que ni en fait après le système de garde moi je pense que ni le matériel je l'ai dit et l'équipement nañu fexe ba salle d'accouchement yi lal yi baax fonctionnel spécial ak ciseaux yeeg petit matériel ya ñuy yor léeg-léeg benn boîte d'accouchement ngay or accoucher def ci eau de javel ñëwaat couper waat beneen cordon et cetera loolu nañ ko renforcer. Mm. problème bi nga xam ne moom mooy problème mu Euh, ré réanimation matériel réanimation nouveau-né bi ñu teg ko fa ba nga xam ni ku ko soxla doo dem di ko jëkkaane ji mm-hmm. ah le dernier point nag c'est tout simplement le travail en équipe. Mm-hmm. man dama gis ay hôpitaux yoo xam ne dañuy motiver sage-femme yi dañuy motiver parce que dañu am un chef de service boo xam ni dafa def autour de lui des équipes qui fonctionnent. Mm-hmm. des équipes qui fonctionnent te def loo xam ne. war nga ko def dina ni la baax na ku def loo xam ne waroo ko def dina laaj lu tax jéem la sensibiliser. mais j'aimerais aussi que ñu def un système. Mm-hmm. de sanctions positives et de sanctions négatives. nit ki boo ko jéemee changé benn jéem ko changé ñaar changer wul ñett changé wul il faut la sanction. Mm-hmm. ah donc je pense que loolu bu ñu ko defee. Mm-hmm. ça sera vraiment très bien par rapport aux conditions de travail des sages-femmes. qui est assez lourd et assez pénible. Mm. ne serait-ce que ñaari malade boo ko amee ci garde rek. kii di yuuxu fële kii di sañu fële a ah, kii di wàccu fële keneen ak keneen ak keneen et cetera nit nit la rek. Mm-hmm. nit nit la suñu génnee nekk nit da ngay xam ni.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 les matrones euh, tey ñu bëggoon xam rek euh, yan façon collaboration euh, le sage-femme di am ñi ñuy duppee ak matron merci loolu moom dafay sawar di tontu rek parce que tout simplement matrone ak sage-femme du benn sage-femme c'est une profession assermentée ñun dañuy jàng ba pare après dañuy waat ci li nga xam ni moom la ñu war a liggéey mm. la matrone ñoom ñoo remplacer les accoucheuses traditionnelles maanaam ña daan for doom bu njëkk. bañ demee ba nga xam ni for doom bi danaan lor yaay di di lor doom ñu ne a ah, nañ changé waaye comme sage-femme yi jote wuñu nañu jël ñi nga xam ni ñoo daan réewle di pas réewle mais ñoo daan for doom ñu jéem a seet naka nañ leen di jëlee defal leen benn euh, formation maanaam jàngal leen pendant juróom benni weer. waaye ñooñu ils sont issus de la société loolu tax ñu am solo maanaam société bi maanaam village ba ñu dëkk ñoom ñooy tànn. ok ñoom ñooy tànn bu ñu tànnee euh, ne poste de santé bi ñii la ñu bëgg ngeen defaral ñu formation pour ñoom pour ñuy jàppale suñ jigéen yi après ñu indi leen ci structure de santé maternité yi juróom-benni weer jàngal leen lu élémentaire li njëkk si liñ leen di jàngal mooy sensibilisation. Mm-hmm. à travers ay causeries. wax jigéen nañ topp seen passé wisit nañ topp ñàkk xale yi bu ñu wasine kër et cetera. d'accord boobu moo ci la ñuy nekk. ils sont parfois des relais. Okay. parfois des relais des relais communautaires ils dans le groupe des relais mhm. communautaires des bàjjenu gox. donc ñooñu bu ñu demee seen dëkk dañu am en général case de santé. Mhm. case de bi li ñu leen di wax mooy. parce que jigéen ñi lu ëpp dañuy matu mais duñu teel a dem hôpital léeg bu ñu yegg si hôpital dafay fekk bopp bi dëy su ko defee dañ leen di wax fexe leen ba accoucher ko soo leen ko accoucher ngeen indi ko si poste de santé bi parce que du rek wasin mucc nga mm-hmm. li topp ci wasin itam mën na indi ay complication mm-hmm. donc loolu mooy matron léeg-léeg itam salle d'accouchement yi nga xam ni mu ngi ci poste de yi dañ fay am ay matron ñoom ñooy jàppale sage-femme ba buy réewle. Mm-hmm. ñooy taxaw ñooy teg bassin bu doom bi génnee mën nañ leen ko jox ñu yóbbu ko ci payaas bi sage-femme bi ñëw fomp dagg xucc defar. cetera donc loolu mooy matrone suñu ay compagnon lañu suñu ay xarit lañu ñu am valeur lañu waaye dañu leen di sant ne leen ci mbirum faj mi dafa am foo xam ne ñoom dañ fa yem lool te foofu la ñu war a yem. Euh, mu mel ni nag euh, ci atum 2006 am na lu ngeen euh, taxawaloon ordre des sages-femmes tey jii rek mënuñu def émission bi te waxuñu ci li nga xamante ne moom mooy ordre des sages-femmes bi ngeen xëyee ci atum 2016 lan mooy rôle ak domaine de compétence am tey lan nga ñu ci mën a wax bi ngeen ko taxawalee ba léegi. waaw peut-être que. dana xam ne dañu xam ni àdduna bi métier boo xam ni c'est un métier assermenté dafa am ordre mm-hmm. ordre c'est un organe de régulation de la profession ku wax régulation maanaam teg ci yoon mm-hmm. teg ci yoon ba tax na euh, depuis des années man kama jiitu woon sax dafa ci doon yëngatu bu baax yal na ko yàlla xare àjjana Marianne Sidibé mm-hmm. bi ma ñëwee itam ma gis chaque fois bu demee ci ay congrès ak yooyu dëkk yi ñu wër yëpp dañu am ordre des sages-femmes te sage-femme bi it compétence yi ñu ko jox c'est universel mm-hmm. donc ñu jéem a liggéey ak ministère de la santé dans le temps ba aboutir ci ordre des sages ñu voté ko en 2016 février 2016 mm-hmm. donc biñ ko voté euh, mu des le décret d'application décret d'application mooy lan ab këyit la boo xam ni président de la république moo koy signé ñu proposé ko mu signé ko ni lii kat am na kon nag léegi fi mu nekk nii war ngeen defaru ba instance yi mën a taxaw président de l'ordre et nangam nangam comme ça ñoom ñu commencé liggéey léegi nag lan mooy rôle ordre ordre li ko tax a jóg mooy travailler sur l'éthique et la déontologie fexe ba sage-femme yi di doxe éthique ak déontologie mm-hmm. donc la morale. Mm-hmm. c'est important fii ñuy wax yëpp naan dañ ma ñàkk kersa nangam c'est parce qu'il n'y a pas de morale ko tax a jóg. Mm-hmm. mais aussi régir la formation la régir la profession de sage-femme à ce que nit ñi di appliquer les compétences édictées par la confédération nationale des sages-femmes. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy ordre bu amee sage-femme boo xam ne am nga sa këyitub sage yaa xam licence la wala. diplôme dangay ngay inscrire à l'ordre boo inscrire ci ordre bi normalement bala ngay dem ñu lay affecté ñoom daañu seet sa niveau de compétence. Mm-hmm. balaa ñu lay teg ci yoon. donc dafa am solo bi ci des mooy dafay protéger profession de sage-femme mais dafay protéger aussi femmes yi nga xam ni moom la ñuy faj. Mm-hmm. donc mu am loo xam ni cër bu am solo la. Mm-hmm. ba tax na ñun dañuy ñaan rek suñu ministre de la santé ak euh, la présidente actuelle que je salue Bigue Bigue jógaat ci rek ba président de la république comme déjà moom elle est saisie du problème bi am Louga. Mm-hmm. ba jóg ci ñu profité si def si prox ndool ba suñu ordre des sages-femmes instance yi mën a taxaw. Mm-hmm. su instance yi taxawee ñu mën a doxal li ñu war a doxal. Mm-hmm. comme ça. y aura pas de linge sale qui se lave en famille de. Mm-hmm. non mais au moins il y des sanctions positives et des sanctions négatives pour les sages-femmes. Mm-hmm. mais au bénéfice des populations. Mm-hmm. d'accord euh, waxtaan wi am na solo échange yi moom amoon na solo bu baax a baax mais nag dafa mel ni li ñu cëraloon ci waxtu wi yegg nañ ca. <laughs> jërëjëf maa ngi sant di gërëm waa réew mi seen taxawaay. boobu ba léegi maa ngi doon ànd ak yéen ay temps temps temps vraiment seen directrice yéen ñi fiy liggéey seen dynamisme et tout ça. Mm-hmm. di wax ni rek leen na dafa am démb ci benn émission bu ma doon seetaan benn waaye ne a ah, bu ñu ŋaññee médecin yi de mu bon bon bon ku ci nekk rek am nga bés boo xam ni sonn nga sonn boo xam ni médecin la fa jëlee. dëgg la ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. donc li am am na ñu ngi koy ak population bi yëpp. waaye nag ñu waxee rek témoignage lu bon rek la ñuy wax mm-hmm. suñu waxee témoignage rek lu bon la ñuy wax bëggoon naa nag témoignage bi aussi ñi nga xam ne dañu xam ni dañ leen defaloon lu baax ñuy jéem ko wax parce que waaw góor dina yokk cawarte mm-hmm. donc euh, ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy demander pardon à la population par rapport à ce qui s'est passé ñuy ñaan nag li nga xam ni moo jaar foofu mu bañ a nekk rek beneen situation de plus boo xam ni ça sera dans l'impunité mmh. que des sanctions puissent être mises en œuvre levé nañ ko ba pare mais mise en œuvre mais que ça soit des exemples pour ceux qui pratiquent ceux qui pratiquent mhm. mais aussi damay ñaan gouvernement bi ñu jéem a réguler lépp loo xam ni profession la ñu jéem a seetaat le système de santé le système de santé ni mu nekk nii il faut que ñu réorganiser ko parce que nous sommes au vingt et unième siècle les choses ont évolué il tellement de bonnes choses de bonnes pratiques des évidences scientifiques yoo xam ni day tax hôpitaux yi gën a jëm kanam. Mm-hmm. ñu jéem ko jël defe ko. Mm-hmm. voilà loolu la amoon lu may wax di wax ni nag man sax sama statut dama ni plus jamais ça. Mm-hmm. que personne ne puisse mourir en donnant la vie. vraiment que ça loolu rek laa amoon lu may wax di gërëm di leen gërëm di leen sant di nuyu sama njaboot ak njabootu sage femme gépp nag di leen wax ne bu wax jotee dañuy wax rek mm-hmm. waaye ñun xam nañ ni li ñuy liggéey ñu ngi leen di jëfal aussi ci li nga xam ni ci lañ nekk. Mhm. merci beaucoup Fatou. Euh, sant ko gërëm ko moom maman Marième Fall fàttali ne moom moo nekkoon tey suñu invité suñu émission bi di SOS santé ñoo ko déggandoo donte am na ñoo xamante ne bu ñuy liggéey dañuy def safaan ma waaye ca beneen wàll woo tamit am na ñoo xamante ne ñu ngi def liggéey liggéey bu mucc ayib xanaa daf di kay rek euh, fi ngay liggéeyee mare de taale foofu ngay yàqee mais buñ ci rek buñ ci rek dañuy taxaw defaruwaat ba moom ni mu ci bi muy tëj plus jamais ça Sénégal war nañu dépasser foo xamante ne dañuy yóbbu femme mu accoucher du dellu si wala ñu yóbbu femme mu accoucher dellu si waaye doomam des ginnaaw wala ñu am ñoo xamante ne dañuy am suite de couche yoo xamante ne après dañ ciy jaare jëlee ay jafe-jafe yu jéggi dayoo sant ko gërëm ko moom maman Marième nekk sage-femme d'État nekk technicienne supérieure de santé waaye tamit nekk présidente honoraire euh, bu de l'association nationale des sage femmes du Sénégal Sénégal fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité